dem naa wiri wiri ak maa yomba li may ñaan yàlla rëy na duma ko nettali sëñ Bamba nee na yàlla dama lay ñaan yàllaahu yow yàlla bil Moustapha maa ngi lay ñaan ci ki tax ma dem ci géej gi bil Moustapha maa ngi lay ñaan ki tax ma jaar ci jéeri ji bil Moustapha maa ngi lay ñaan ki tax ma dem ma yomba bil Moustapha maa ngi lay ñaan ki tax ma dem wiiri wiiri sindi di ak njàppandal koo koy ñaan mun ko yàllaahu yow yàlla wa bi xalalika maa ngi la koy ñaan ci barke sa ba Ibrahima yàlla ñu ko ban xarit la munu yonent yàlla Ibrahim la koy Moussa saalihin ku yiw ka xadrin yonent yàlla xudar wa bi soxaybin maa ngi la koy ñaan ci soaybu maa ngi la koy ñaan ci ismaila yow yàlla wa bi suleymaana maa ngi la koy ñaan ci barke souleyman nuuxun maa ngi la koy ñaan ci barke nuux maa ngi la koy ñaan ci barke yunus maa ngi la koy ñaan ci barke la koy ñaan ci barke la koy ñaan ci barke Yaxya maa ngi la koy ñaan ci Zakariya maa la koy ñaan ci Moussa maa ngi la koy ñaan ci Aaron maa ngi la koy ñaan ci Moussa la koy ñaan ci Ilias la koy ñaan Adama maa la koy ñaan ci يوسف maa ngi la ko ñaan ci Yuusuf maa ngi la ko ñaan ci Isaa maa ngi la ko ñaan ci ñoom ñaar mboolem yonent yi ak ñi nga yónni yow yàlla sëñ Bamba ngay ñaan ci malaayika ya sëñ Bamba ngay ñaan ci malaayika ya malaayika yi ci kaw suuf ko bàyyi na yonent yi malaayika ci malaayika yi nee na ko yàlla daraja jàng yéeg turan am naa daaf boobu malaayika turan la koy ñaan ci mboole malaayika yi ñëpp suma safati maa ngi leen koy ñaan ci barki seen njiit ba jibrila yonent yàlla si Seydina Jibril bi mikail maa ngi la koy ñaan ci mikail yàlla saaxibi nafi maa ngi la koy ñaan ci kii ëf bufta ba fi la xaabidaar bi nga xam ne mooy jëruya wayl xalaaiqi maa ngi la koy ñaan ci barki mi maa ngi la koy ñaan ci barki sahabati maa ngi la koy ñaan ci barki sahaba yi maa ngi la koy ñaan ci barki wali ñoom ñëpp minal axbaar maanaam sëñ Bamba ñaan na ci barke yonent yi ñaan na ci barke malaayika yi ñaan na ci barke saabu rasool yi wa bi sidiq maa ngi la koy ñaan ci barke xaritam Aboubacar wa bil faaraax maa ngi la koy ñaan ci barke Omar wa bi si naar maa ngi la koy ñaan ci barke Ousmane maa ngi la koy ñaan ci barke Ousmane maa ngi la koy ñaan ci Ousmane malikin sel masaya sëñ Bamba nee na maa ngi la koy ñaan ci barke Imam Malik malikin sel masaya eh, sëñ Bamba ngay ñaan yàlla malikin sel masaya yàlla ngi naan ko leen damay ñaan bi malikin sel masa mu ne ma la ko wax damay def tawasul bi malikin la ko ci ñaar fukk juróomi yonent maa ngi la ko ñaan ci barke wàllu yi hanifatan maa ngi la koy ñaan abu hanifa ahmad la koy ñaan ci ñeenti ngir a ba tey bamba waxagul li muy ñaan bàyyi bi lawxi maa ngi la koy ñaan ci barke lawxul mahfuus wal xalamil maa ngi la ko ñaan ci xalam ak ngay la koy ñaan ci lawxul mahfuus suma bi arsu kal azim yàlla ba tey li ma leen ñaan duma la ko wax ci barke arsh laa la koy ñaan maa ngi la koy ñaan ci barke siis ba yàlla yi toog alxuraan yàlla maa ngi lay ci barke alxuraan sëñ Bamba ngay ñaan yàlla ci alxuraan yàlla nee na ko la nga bay ñaan ko duma la ko wax bil quran dama la koy junj rek wa bi tawraat maa ngi la koy ñaan ci tawraat suma bi ma ak li nga xam ne daawud ja moom nga joxoon yonent yàlla daawuda abihi mu indil ñu ko ruuxi maa ngi la koy ñaan ci barke ruux yi bi tawbatin ma oh. Oh, xoolal eh. lay na lay lay na sëñ Ba maa ngi doog a ñaan soxla ah ruux yàlla nee na ko li ma lay ñaan maa ngi la koy ñaan ci barke ruux balix nee na xoolal cheikh cheikh sëñ bamba daa wax ba yàlla ni ko o bu doon kuy daanu daanu naa wax li nga bëgg mu ne yàlla ba léegi yàlla nag ma joxtalal salaat yi sama sama julli ba léegi salaat yi sëñ bamba ngay bëgg wax yàlla soxlaam ba léegi waaye kuy murit nee la amiin sëñ Bamba ngay bëgg a ñaan soxla uh, uh, uh. nee na bëgguma dara ci li may ñaan yàlla damay ñaan nga julli ci yonent bi moo ma ci nelaw guddi yàlla yàlla na nga sëmbaxte sëñ Bamba ngay ñaan yàlla nee na ko bëgg a tudd doom soxna sëñ a ngay ñaan ma nga naan yàlla yàlla nga sëmbaxte li ma lay ñaan لنا علينا لنا الخصدة يا رحمن الرحيم دارين يلا يلا يلا nga defal àdduna mu neex defal àllaaxira mu neex tax la naa yàlla yàlla ñu ibbil ku la baadin bépp bunt kunta fatiha boo xam ne yaa ko tëjoon li saalihina ñeel ñu baax ña min al xayraati yàlla ànd ak ay yiw yow yàlla wasul bina yàlla yàlla ñu sóob rusudin ci yoonu ñu baax ñi yàlla ñu fegal lu ñaaw wuranaa jëna yow yàlla yàlla ñu dàqal wa seytaan yàlla yàlla nga dàq seytaane dinne wakam leen ku la maanan xuu yàlla yàlla nag ñu ñaan wakam leen ku la maanan xuu bamba ngi naan yàlla ñoo ngay ñëw wakam leen kulamaa. yàlla lépp lu ñu dëgmal na nga ñëw. wa kamilan. yàlla nga matal. kulamaa nan xu. lépp loo xamante ni. wa naqsuduhu. jublu nañu ko. xam nga loolu yàlla yàlla ñu may. kulamaa. yàlla yàlla ñu may. walaay walaay sëñ Bamba ngay ñaan. uranaa kulesi. bàyyi sëñ Abdou Khadra ngay ñaan. Ah, bàyyi sëñ Fallu ngay ñaan. bàyyi sëñ Abdou Lahat. weesan kulesi. bàyyi sëñ Saliwa ngay ñaan. tuusire yàlla. yàlla yàlla nga yombal. tawil lanaa. Oh, tawil lanaa umranaa. lanaa. tawil lanaa. lanaa. لنا عمرنا باي سن بامبا ngay ñaan tawi lana عمرنا tawi lana عمرنا سن بامبا ngay ñaan tawi lana عمرنا سن بامبا ngay ñaan tawi lana عمرنا سن بامبا ngay ñaan tawi lana مصطفى لا اله الا الله يا خير الله بابا دي سن بامبا ودم mi rañal nga sa mbaxtal bépp noon wax ñu day ñëw ci ñu ah, yàlla bu mu yegsi dëgg la bamba ne ngi ñaan yàlla yàlla nga ñu defal ñu mucc min kul ma nga la ci lépp luy alak wana jinaa yàlla ñu musal min balaa ci bépp balaa diiru jamono yàlla bu aafatin ak ñàkk ahatin ak toroxtange maqushatin ak békoor mihanin ak yaakaar jamono salsalatin ak toroxtange shiddatin ak tartar wal faxri yàlla ak ñàkk yow yàlla dihaanatin ak doyadi xilatin ak texeedi maxsilatin xalab ak ñàkk ak ba faw wa faaxatin yow yàlla ma lay ñaan watashin wa deex yàlla defoo ñu wa fitnatin wa fitnatin waaye sëñ Bamba ngay ñaan yàlla woo fitnati wala baa Saliou kuy murit neel fitnati wala baa murit neel jërëjëf fitnati wala baa papa kuy murit neel jërëjëf fitnati wala baa wal fitnati wala baa wal barxima suraxin oh. wal qaddi yàlla xarin wa bardin wa naxbin kurbatin niqamin dalatin xarajin wal xam yàlla wahamatin wa xataa yaadaratin siralin wal masri wal xasfi suma alxasfi yàlla wa xulatin mang jununin watin maradin suma jusaa mayni wa nuqsaan yàlla wa min xabaxa fi dunya suma axiratin wa min fuduxi yàlla yàlla لأمن على كل شيء خادم على أنت مسلم سلام بالقهر إني سألتك قلبا خاشعا متلا بيرغم المن يسير النفي الله وتوبة خبلت وتوبة خبلت waxaat ko wa tawbatan xubilat wa tawbatan xubilat boo ko waxaatee yàlla nga saf ñool màkk wa tawbatan wa tawbatan xubilat bëgg naa àdduna dégg ko wa tawbatan wa tawbatan xubilat sëñ Bamba nee na wa tawbatan xubilat oh Cheikh sëñ Bamba nee na yàlla ñaan naa la ba noppi wa tawbatan tuub gi xubilat yàlla nga ma ko nangul mais Cheikh sa oh. Cheikh oh. Oh. cheikh li cheikh réew mi yëngu na. Oh. alhamdulilah. Serigne Sam Mbakke. ndeysaan waaw. di doomi Moor Masamba. moo woote léegi. dëgg na ma tey. Uh-huh. kenn nelawu rawatina kër Serigne Masamba ndax kii jàng dafa dëkk. dëgg la. tubaarkalla woote na. dambeng gàdd mbiraama ñëpp woote ñëpp daanu na. Uh-huh. waaye buubu nga jànkatu xasida moo seere léegi nee na ma du sunu moroom. nan ko nangu ci kii ni muy jànge macha allah loolu dafay indi seede boo déggee nag fii ak jaar ak nii mu def ak nii mu koy jàngee nga xam ni Serigne Touba kenn du moom seex fi mu jaaral ak sëñ Bamba ak sëñ Touba li ko yàlla jaral Cheikh Mamadou Mourtada yi dañoo lakk ay toolam ci mbundoom ñu bëgg leen a téye mu ne bu leen kenn jàpp sama alal alal yàlla nee na ma sëriñ bii dem bàyyi wunoog dara waaye danoo bàyyi sunu borom Cheikh Amadou Murtada góor yàlla moo ma ko wax mu indi léegi Touba wax yéene Abdoulaye Wade ci Touba ak la mu ci def ku fi toog liggéey sëñ Touba xoolal fi président Macky Sall jëlee autoroute yóbbu ko Touba bugaan mii dañu ànd ma ak moom nu dem seet si sëñ Moustapha Mbakke mu sëñ Mbakke soxna loolu niboo ji mu toog cootu bu ñangu mu yegg ci sëñ bi ni ko ñaanal ma ma godoro fii sëñ mu ni ko sa yéene yow bugaan ëpp na godoro ne góor góorgóorlu nga xool tey fi réew mi toll lu yëngu bu seex Murtaxa bu seex Murtaxa yëkkati lépp dal lu lan moo ko waral mooy xasida yii lii fu mu jib takk-takk du fa am lu sëñ Bamba fas kenn mënu ko fecc moo tax ku yebu dal moo tax réew mi toll nii tey plateau bi yëngu na waaye ragal naa seti bursin yi am na ñu nar a dox sax ñëw ci plateau bi attention nañu xool bunt bi papa papa ah. alors Cheikh euh, a euh, dañuy Ndofène Fall maa ngi ñëw ci yéen maa ngi ñëw ci yéen léegi xam naa dañuy delluwaat régie ànd ak ñoom dem pub mais laata loolu peut-être